ñu di ci dalal El Hadj Ahmed Aidara bismillah xeex ba diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall mi lu mënatul ñàkk la de mardi taali le pays au quotidien waaye mel na ni kon ñëwug Abdoulaye Wade bi daa commencé tiital nguur gi de ah maa la wax li le loo ca mën a dégg daal mooy keroog ba comité directeur du parti démocratique sénégalais xam lee ne kon Abdoulaye Wade mi dana di kat ci mi ah ñi ànd ak Macky day mel na ni kon nelawatuñ ba yandoor déedéet APR ca boppam maanaam tëkku yi nga xam bëgg kon taxaw daar daar urgence la ngir jàkkaarloo kon ak waa parti démocratique sénégalais yéene kaa gi ne waa APR tey ah fi nekk nii nag la ñu bëgg daal mooy nappaaje yàqate dikk gi nga xam ne kon Abdoulaye Wade na mën a koo dikk ci biir réew mi ak gatandu gi nga xam ne kon na mën nañ ko koo gatandu comme ni ñuy tërtoo buur waaw waaw loolee daal tax na ba waa kër Macky Sall yi lee fasee ne yëkkati nag seen banqaas yi nekk ci diwaanu Ndakaaru gii ca Thiès ca Njaaréem la wax lii sukkandikoo nag ci kenn ku nekk ca APR àndal il faut ñu xam ne fi mu nekk nii ñun ñii ñoo jiite kon réew mi maa la ko wax bu ñu fi jéemee nekk nag di jéema a kon dugal nguur gi kon ci ab guta danañu defanteeg ñoom ba mu très bien Benoît Samb ci réew mi quotidien ne saa su Abdoulaye Wade kon namee créé ab désordre bëccëxal réew mi danañu ko teg ci siraatal mustaqim waaw waaw loi doo ngay lalu kon ci ndodam yéene kaay gi ne jàkkaarloo nguur gi nga xam ne moo fi nekkoon ak nguur gu bees gi waa Touba ak waa Tiwaawoon ah la ñu bëgg daal mooy sotti ci kon ndox mu sedd alhamdulilahi rabbil alamin si Malick Mbacké Sall Aïssa ñaar ñoo xam ne kii Touba la ne kee ci waawoon la ne xam le nañu carrément ne ñaari kër kilifa diine yoo jee fa seene wu ñoo banque seen loxo de ngir réew mi kon di dugg ci ab guta dégg ay jéebaa nan teeg ay ay ay jaqar ban teeg ak lu ni mel déedéet yéen gi ne coow li nag kon mi ngi doore ceroog ba Abdoul Mbaye yëkkatee ay kaddu xam le ne Macky Sall bi mu ne salaamaaleykum yegg ci nguur gi kees gi fekk ci ñaari dërëmu Mali dégg ak keroog ba procureur spécial Aliou Ndao yëkkatee daal ay kaddu tudd ay turu kilifa yi nga xam ne ñoo nekkoon ci nguurug Abdoulaye Wade gi te amee xaalis nag ci ndoddug sénégalais di contribuable sénégalais bi le nekku ci taq daal maanaam danañu yëkkati ay daan lal ko sab ndodd lii moo taal kon réew mi le libération yene kay ne bari na ci nekk ay góorgóorlu sénégalais yoo xam ne naqarlu nañu turu Mamadou Diagne ñu gën ko xam ci Doudou jaañ ñu tudd ko kon ca mbir ma waaye tamit turu Tahibou Ndiaye mi ñu ca tudd ah waaw parce que yow ñoom ñaar ñoo seen xalaat daal la ñu doon joxe comme technicien nekkul na ñoo doon joxe kon terrain suñu naataango yee ne classe dëgg la ñu wax dañu naqarloo lan moo tax kon ba turu Ibrahima Wade dégguñ ko ca loolee luy ndee parce que Ibrahima Wade daa jóge fa mu nekkoon kon dem ca APR jee wala ca couleur marron ya ah te loolee teewul tey bu Ndiaye ak Mamadou Diagne mii ñu xam lu bare bare bare ci wàllum suuf wala boo xam lépp sax maa la wax li la libération yéene kay ne te est xam ngeen benn affaire ay jege ñaale Mamadou Diagne ak tey bu Ndiaye mii nee nañ leen wax leen wax leen ñu waxee àdduna tukki de maa la wax li wax leen la wax kay mooy turu Aminata Ñaan mi nga xam ne ma nga woon ca liste ba te ñu génnee ko libération ko bindoon waaw Le Quotidien yéen kay ne moom Aminata Ñaan moo mais daa mujj kon bind ab leetar ne bàyyi na démissionné na bind ko président de la République ci poste ministre conseiller aux infrastructures ne bàyyi na parce que xas ak attaque nga xam ne kon ñu ngi ko koy def di ko defaale président de la ñu wax kay mooy Mamour Cissé ci yéen kaay ma jambal jàng yi mu ne Macky Sall ci boppam kon moo war askanu Sénégal gi lay i Mamour Cissé ne lii raam ca nag wala jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a génn l'heure est grave Mamour Cissé yamu ca ndaxte nee na benn xeex daal la ñëpp war a xeex lu jëmale suñu réew mii kanam waaw waaw waaye tamit respecté diggée yi nga xam ne kon gaa ñi diggée woon nañu ko te diggée yoo yee xam nga nan la tudda a ah at mu ne nga wutal juróom ak ñaar ci ay ndaw liggéey soixante-douze mille emplois par an maa la wax li lée wàññi tamit dund gi lée jigéen ñi nekk ci fabbu Ahmed Khalifa Niass ci direct ci info daañ naar ne mënuñoo wax ne Macky Sall mi daa seba mel ni galaas ah ah déedéet te nag attention gis nga lii nii ñu gis nii ci ay jéebaanante kon la ñuy mujj sullente ay mbóot werante goo xam ne kon nitu male mel ni ku nekk marché di leen ah ah waaw waaw parce que yow Macky Sall mi mook ñoom ñoo àndoon cay nguurug Macky Sall gaa Cheikh Béthio Thioune na nga ca kaso ba Serigne Modou Kara Mbacké a baal ah benn sens Serigne Modou Kara Mbacké yamu ca ndaxte nee boo leen gisee xalif généralu murid yi waxu ci mais parce que kookee républicain la daa xam lan mooy loi kay Mbacké Balla Aïssa Le Quotidien yéene kay ne Cheikh Béthio Thioune moomé eh, ak Luc Nicolaï un boo sàgganee ñu atte leen ci assise de marti tal la ilaha illallah assise yi mooy fi ñuy attee ñi nga xam ni kon ay defkatu giraawaali lañu ak ay reykatu nit la ilaha illallah tribune yéene kay ne ko de Luc Nicolaï mii mbaa du kon ci bàyyi nagandiko la jëm enquête yéene mu siqal coow li di Bertrand Dulli ngi ci ay tànku génn kaso ba di i libération yéene kay ne Ablaye Wade daal dem na waaye plan jaxaay gee ndaataatalax geeg gundaandaat geeg noos ga nekkate ba léegi moo nekk ca yoriñ ga maar tey taali mais xoolal leen ma Umar Sow mi nga xam ne mooy directeur yu urbanisme te du moom la ñu jël def ko coordonnateur jaxaay googee mu toogandi fa intérimaire ah Macky Sall ba mu ko yegee daf ne nañ ko fa jëlee te ba léegi ni la kon waajaa fa ne waaja yamu ca de magam wala rakam di frère am Babacar Sow la jël laa lay wax ni daal di koy fal i te waaja kat plan jaxaay gii la waaye ma nga ràcc di ndaataatalax di gundaandaat di noos ca Mbàkke gële ca Bawol eh way Samba dem na ca lamb jë le sport ah ne cay njiital promoteur yi leadership ba Aziz Ndiaye mbaa du kon mooy patron bu bees bi ci làmb ji roxee cam ci yéene kaay gi ne Aziz Ndiaye dana am ay jumtukaay ak kattan gu mu defee li raw ñi nga xam ne kon ñoo ko fi jiitu Balla Gaye 2 tafaatin làmb ja gaañaa nga ca Balla Gaye 2 ci suñu lamb ne tafaatin de dinaa ko daal daan wu rafet woo xam ni avec la manière tey <laughs> lii alaaji lamb ji du ma ciy bëgg di de baax mukk parce que muy tafaatin xam naa diisaayu loxoom Balla Gaye 2 xam naa xarañam ak caay-caayam noo man lamb ji man duma ma ciy bëgg di de baax parce que bëgguma cee niin mbat te bëgguma cee taqrib